Limamou Laye daal di ko menacé ba tax ñoom ñi nga xam ne ñoo bokk ak collègue boobu di liggéey ak ñoom ñu def journée débrayage yu deux jours muy jeudi tey ji ak vendredi ñu ñëw ci lycée bi tàllal suñu micro ñi nga xam ne ay collègue lañ ñu wax ñu quelques réactions ci journée boobu en même temps aussi mbir mi suñ ci mënee xuus tuuti rek am ci quelque information sans plus tarder ñu nuyu suñu invité daal di ko dalal ñu ngi lay nuyu professeur. maa ngi leen di fay salaamaaleykum. di nuyu mbokk internet yëpp tur bi c'est monsieur Bodian di professeur SVT au lycée Seydina Limamou Laye. mun ngaa revenir un peu ci journée bi nga xam ne tey dangeen ko def muy journée débariage pour l'affaire de la de l'élève qui a menacé de mort un de un de vous ki nga xam ne professeur SVT la. voilà léegi euh, balaa may ñëw si action yu nga xam ne collègues yi dañ ko entreprendre euh, damay ñëw juste sur sur les faits parce que euh, mu ngi déroulé le jeudi 22 décembre à la veille des fêtes donc c'est un collègue qui pendant son cours euh, avait constaté donc un cas d'indiscipline dans sa classe mu renvoyé une élève après kon ne def cours comme d'habitude parce que ça nous arrive très souvent muy am yooyu d'ailleurs même au début l'élève dafa bañoon jénn mu woo le surveillant l'élève bi jénn mais après élève bi dem wooyi son frère et sa mère ba mu jénnee nag classe di dem vers euh, le restaurant du lycée frère bi ak yaay gi dogaale ko ci ci cours bi euh, bañ bëggee wax ak moom mu ne leen en fait fii c'est pas le lieu nii le moment pour parler de ça et moom sax joxewul convocation des parent si la ko frère bi dagg ne ko euh, ñun dañuy reprocher élèves yi indiscipline mais euh, ñun professeurs yi ñoo gën a indiscipliné parce que mënuñ ñoom mënuñ ñëw ba fii euh, prof bi ne du wax ak ñoom donc ba ko élève bi waxee noonu prof bi ne ko mais yow yaa ngi gis lu ngay wax donc lu ngay def yëfu reewane la parce que mënoo ñëw ba fii di ma traité d'indiscipline waaw ba mu ko waxee yëfu réewande la booy bi gën a répliqué na ko yaa ma gën a réew saaga et puis comme y avait d'autres élèves à côté donc élèves yi ñëw mu xaw a xumb trop euh, ñu bugg ko jàpp jénn mu xataraayu bañ waaw xataraayu bañ prof bi taxaw croiser les bras croiser les bras euh, taxaw noppi nag di ko déglu donc ne ko fii nga nekk école moo tax mënu mënuñ la def dara mais soo jénnee jaar fu bon am na yoo xam ne mënuma ko wax ci micro bi euh, comme d'habitude rek il est jeune ne ko soo fi jënee dama lay rey wax lu ko neex tombe après y avait même le proviseur qui sortait du lycée mu tombé ci fin wu altercation bi tombé papay xale bi ñëw proviseur rek papay xale bi ñëw dàq xale bi mu génn ak yaayam donc prof bi nag loolu daf métti woon ko trop parce que devant ses élèves la lañ ko doon saaga yenn kii yi noonu moom nag réagirul Euh, malheureusement euh, fekk na ko si ay ay élèves donc mu vexé ko trop donc mu tombé nag veyu fête ñun bañ yégee problème bi euh, son père après ñëwaat na excusé wu par rapport à ce que sa femme lu mu def ak ak doomam bu góor ñu ne ko nag après ñun on a pris acte dinañu waxtaan suñu biir après ñu xool la suite affaire donc noonu la demee. Euh, le collègue après porté plainte par rapport aux injures yu mu ko proféré ak euh, menace de mort bi ba mu ko porté plainte woo nañu l'administration ñu ko diriger DEA ak proviseur ñu entendre leen donc woo également le concerné le collègue donc woo également euh, l'élève et son frère sa famille également donc loolu mu ngi nekk en en mais ba ñu ñëwee fête également on a convoqué l'assemblée des professeur parce que comme c'est un collègue a été attaqué dans son de service donc su doon daf def un agent de police donc déjà sur le champ lañ koy jàpp dugal ko donc def na ko euh, un agent en service donc ñu ne duñ ko bàyyi mu jàll il faudra il faudra que ñu mener une action pour que pareille situation du fi am parce que collègue bi su ko dóoroon wala mu jël benn affaire gaañ ko su boobaa dañuy dal ci kaw collègue bi collègue bi aussi ay élèves am mënu nañ dal si frère u kële suñ ko gaañee su boobaa dañuy dal également si kii donc pour bañ yenn violence yi am il faudra que yii ñu koy condamner donc raison pour laquelle euh, l'assemblée des professeurs après euh, sa réunion bu mu tenir le mercredi donc ñu décider euh, pour soutenir déjà le correct et wane que pareille situation dañ ko war a dafa war a deñ si école yi ñu ne dañuy décréter deux jours de débrayage à partir de 9h mooy le jeudi tey le jeudi 5 euh, janvier et le vendredi 6 janvier et au-delà de ça également euh, ñun on a pris déjà de dire que l'élève parce que depuis lors élève baa ngi ñëw def cours normalement donc ce qui n'est pas normal au moins qu'on qu'on devrait convoquer au moins mu am au moins lu ñu sanctionné élève bi ñu ne ñun élève bi dootuñ ko mun recevoir suñu cours donc l'engagement dootuñu ko recevoir ci classe yi donc et demande également à ce que le conseil de discipline mu renvoyé ko parce que c'est des cas qu'il ne faut pas encourager loolu moo waral suñu mouvement bi waaw. est-ce revenir ci euh, prof bi xale bi élève bi ban niveau ban classe la ko yoroon en même temps aussi acte indiscipline bi ban genre la daf doon wax euh, téléphone dafa yore woon téléphone am da doon perturbé est-ce que mun nga ñu ci euh, leeralal un euh, am na si yu ma mën a dugg mais am na yoo xam ne xam naa dama koy bàyyi tuuti comme am na une plainte qui a été posée euh, déposée xale bi. Euh, suñu élève la nag parce que euh, yor na ko depuis seconde depuis euh, je pense seconde donc moo ko yoroon donc xale bi passé na ñëw première moo ko yoroon première moo ko yoraat terminal parce que d'habitude ñun soo yoree yenn classes yi da ngay ànd classe bi des fois moom ngay continuer ba terminale voilà donc euh, début problème bi c'était pas waaw ah, moom a xale bi sax parce que da doon dicté donc moom nga def benn séquence ba mu jeex après ngay dicter pour élèves yi prendre note donc mu am euh, xarit bi di manipuler téléphone donc mu ñëw jël téléphone bi ñoom ñaara toogoon nag moo moo moo moo kii ndi problème bi donc mu nangu téléphone kooku ba mu ko nangoo après nag xale bi en question peut-être loolu neexu ko peut-être nangoo ko si moom tam da ko nangu teg ko di continuer dicté am dàq ko woon waaw waaw du du du élève bi seulement nag ba mu ko nangoo après l'élève arrêté bind bi croisé bu laa xool professeur bi bon prof bi continuer dicté mu wutee ne xale gis ne kii bindul waaw boobu ba léegi ba mu bindul mu ngi taxaw di mu ngi croisé bi xool mu ne ko mais euh, quest a donc il faut écrire ah et arrête de comme ça il à dicter l'élève refuse de d'écrire et continue à à à, à le regarder bon mu ne ko jëlal say bagages après tu viens tu vas sortir mu bañ mu woo le surveillant élève bi bañ finalement ñu convaincre ko mu waa mu génn voilà loolu mooy indi au début le problème mais c'était un problème qui qui est géré donc ça peut ça géré entre l'administration Euh, voilà sans parents yëpp moo tax sa joxewuloon sa convocation parents donc dañ ko kii la wu ne rek mu def kuuram donc demul sa surveillant bi nekkoon na nga ma délivrer euh, convocation des parents parce que ñun des fois des cas peuvent nous arriver comme sax mais dañ koy régler parce que xale yi euh, ñii suñuy doom lañu ñii suñuy raq lañu parce que am nañu raq yu toll ak ñoom voilà moo tax su amee cas yi donc dañuy waxtaan dañuy waxtaan ak ñoom des fois sax ñoom ñooy ñëw des fois publiquement ñu excuser wu donc incident bu si am rek mooy le fait que mu woo après frère ma kii bon on ne pas lu leen wax euh, ba ñu ñëw si école bi euh, ñoom aussi ba ñu ñëwee professeur bi di dem ne leen fii du le moment pour ñu waxtaanee ko ak fii nii donc vous attendez à ce qu'on délivre euh, une convocation des parents donc mënoon nañu fa yem rek. mu bañoon jël yenn tournoi yi mais le fait que après donc le fraire de de l'élève renvoyé mu voilà donc am nu mu répondre prof bi ba après coow am si voilà ñi gars yi ñëw foofu pour jëm ko jénnee si biti loolu moo indi nag la moo gën mu gën a tax affaire bi mu mu dégénéré voilà. dañuy ñëw foofu avant dernière question Euh, responsabilité des professeurs su ma nee responsabilité des professeurs ya des années tey boo gisoon sa professeur boo taseeg moom da daw parce que ragal nga le lendemain ngeen sa école mu poser la question wala mu toroxal la en quelque sorte bu nekkee maitriser woo sa élément bi nga xam ne moo lay indi école mais tey on voit de plus en plus que élèves yi dañu ñeme professeurs yi est-ce que du professeurs yi ñoom dañu jeune ñëw ak euh, benn style wala it professeur yi parfois euh, seen kanam dañ koy may seen élève ba après parce que it sa prof bu la ne génnal wala nga am audace taxaw fixé sa prof muy dicté yow bindoo yaa yaa quoi s'inquiéter quand même. voilà yaa quoi s'inquiéter mais nag euh, dafa nekk problème bu global xam nga avant am na nu nu société yi doon dundee waaw sa doom euh, même koñ bi ñu ko ñu ko féete mag ñu ko féete du ko ñu ñu nga xam ne am na nañu âge papaam wala âge yaayam dañ ko doon yar te parents yi kenn du wax voilà léegi loolu amatul léegi da ngay ragal sax euh, wax dara sax wama la sax dóor mais yenn kàddu yi sax da nga koy ragale yëkkati si doomu jàmbur euh, da ngay dugg des fois au sein de la famille Euh, dañuy ragal des fois sax duñu voilà dañuy ragal punir seen doom wala egg seen doom si fenn fi voilà loolu nag moom mooy ñëw si mbedd mi mooy ñëw ba si école yi voilà des fois xale bi day yaakaar ne euh, il peut faire tout euh, réalité yi nag ñoo bokkatul man mii ba ma doon jàng fii laa jàngee ne am laay jàng naa ba jóge fi musuma dugg cellule SVT pour ñëw kii sama sama prof administration ñun daa amoon euh, amoo droit dugg fa yenn heures yi te soo amee problème sax dañoo y avait des horaires yu ñu fixé woon si ngay ñëw donc gis euh, le censeur tel tel tel voilà léegi euh, demeewul noonu soo xoolee léegi effectif bu nekk Limamoulaye ak effectif ba woon bokkul déjà su ma la joxee rek on est plus de 300 professeurs soo jëlee y a plus de 12 000 élèves soo boolee enseignement professionnel enseignement général enseignement technique. donc c'est un très grand lycée waaw léegi da ngay dugg classe nga am ay quatre-vingts élèves quatre-vingts élèves yooyu noonu approche bu nga am ak ñoom mun na ute trop ak approche bu ngay am ak donc su dee vingt élèves la ak yooyu euh, oui donc soo duggee classe euh, climat classe bi nu muy demee yow yaa koy gérer donc dinañ fa su dee autorité dinañ ko def ak ñoom man mii di wax ak yow. euh, les élèves peuvent euh, en témoigner, et, pas, et pour beaucoup d'autres collègues. L'heure 8 man su ma dugg da leen di le cours commence à 8 heures 00 parce que du rek dañ leen di jàngal euh, du rek ay leçons la ñuy joxe mais da leen di jàngal également euh, jox leen éducation si le respect des horaires du travail donc 8 heures 00 on doit démarrer. dama doon ñëw donc huit heures zéro su ma démarré soo ñëwee huit cinq ma ne la attends neuf heures tu cherches un billet pour rek leur dire par exemple on doit démarrer le travail à telle heure voilà am na yoo xam ne duñ ko accepter muk mais nag Euh, il faut que ñu wal leen kanam bu nga xam ne dinañu ñeme mun ñu wax seen problème dañuy wax des fois ay problèmes yu nga xam ne ça n'a rien à voir avec l'école des problèmes sociaux ñu dox si ay tànk mais ku la ñemewul doo la ko mun wax mais nag di nga ko ibil kanam mais pas kanam bu nga xam ne après dalay manquer respect déedéet donc di ko imbil kanam pour que mu mun la wax ay jafe-jafeem mën la wax des fois ay problème nga mun si dox tànk des fois ñu def fi délégation pour dem euh, régler un problème euh, sociale ba nga xam ne donc mënoon nañ téye suñu kii ne dee concerné wu école mais comme suñu élève la donc foog ñu ñu doxee loolu man mii par exemple euh, ba ma commencé jàngale au début mënoon naa am problème ak élève ma renvoyé ko mais soo xoolee euh, quand j'ai regardé par exemple l'environnement et quand j'ai regardé également les doyens procédés moo tax élèves même su ma la renvoyé dama lay ñëw toog waxtaan ak yow laaj la lii ak lii pourquoi nga nga nga defee noonu finalement des fois dangay gis ne des fois euh, du euh, indiscipline moom moo ko si yóbbee et parfois même day ñëw après jéggalu voilà moo tax problème bi am si si école bi Euh, bu ñu ko xool rek entre enseignant ak kii c'est un problème bu nga xam ne donc moo nekk ci kër yi moo nekk ci koñ yi moom moo law ba ñëw si ci école bi donc lii nag euh, leen rek lay wone mooy sunu système éducatif way performant la am na ay résultats yu mu jur mais dañoo toll si moment bu nga xam ne donc dañ ko war a tëggaat du rek jàngale il faut que élèves yi ñu war leen ay valeurs il faut que élèves yi ñu war leen des fois respect bu ñu war a am. si mag ñi donc loolu nag dañ ko war a dugal si njàng bi dès dès l'école primaire ba egg si kaw donc tant loolu defuñu ko day poser problème et soo xoolee suñu loi yi sax nuñ ko nuñ ko nuñ ko soo demee réglement yi si école yi donc nuñ ko nuñ ko tënkee mooy donc chaque fois da ngay gis élève bi quelque que soit lu mu mënta def donc mënuñ ko exclure donc mun nañ ko rek renvoyer pour quelques jours après bàyyiwaat ko mu ñëw alors que donc du renvoi ba mun na nekk sax dernier mun na nekk exception mais war na am ay dispositions yu nga xam ne élève bi donc war nañ ko mu a punir si yeneen fànn yeneen fànn yeneen fànn avant ñu egg si donc si renvoi et je pense que yooyu euh, moo gën a indi problème ensuite euh, école bi bëri perturbation avec les grèves récurrentes voilà avec parfois euh, la diabolisation de certains euh, voilà hommes politiques des fois suñuy wax ci enseignant avec un certain mépris voilà su ko élèves yi di dégg du ñu jox cër enseignant yi voilà sooy soo naan enseignant bi euh, xaalis rek moo leen tax a jóg xaalis rek moo leen tax des fois du ñu am yenn cër yi ci enseignant bi mais yàlla xam na yàlla xam na ne dañuy ñëw classe da ngay ñëw classe da ngay gis des fois tu élèves yu nga xam ne ndekki duñu ko am da ngay jénnee sa poste jox leen ñu dem ndékki lu si bëri c'est-à-dire que tu n'es plus l'enseignant mais tu es également le parent de rêve le grand frère donc il faut les aider et cas yu bëri day am waaw mais nag suñu jógee di xeex yeneen cas yu nga xam ne c'est lii à la fonction du par exemple cas wu Euh, xaalis rek moo tax jóg même même même su dee si même su dee si lié à l'argent mais am na yoo xam ne mun nañ éviter du ko wax parce que wax ko si biti mooy tax des fois respect bi élève war a am par rapport à son professeur du ko am donc respect bi population waroon am par rapport aux enseignants du ko am man mii sama doom day jàng mu ngi à l'école primaire mais damay dem di ko seeti damay dem di seeti son donc son son enseignant di ko laaj des fois daf ma naan soo demee kër nga del reprendre lii ak léegi bul yàqamti parce que xale la waaw yéen di ngeen xaw a yàqamti mais moom xale la yow lii dee ko reprendre dee ko defee nii dee ko defee nii dee ko defee nii et su si l'occasion se présente des fois su ma amee lu symbolique dem yóbbul ko ko jox ko kado donc ah lii de maa la ko jox kado pas pour du corruption dara mais c'est que on moom la ñu confier suñu kii ma damay xëy dem liggéeyi yaa ki kii la plupart du temps moom mooy nekk xale bi donc ñun certes dinañ éduquer mais moom lu muy def si moom moo gën a bëri d'ailleurs sax kër ga lu mu wax ne maîtresse ñun suñu bëgg bëggee xam lañu koy wax donc dañ lay booleeg sa maîtresse soo bàyyiwul ñu booleeg sa maîtresse mu bàyyi cest à que am na cër bu mu jox déjà maîtresse am léegi loolu nag ñun ñun yow soo nekkee place su parent d'élève yow yaa koy yaa yaa fay teg enseignant bi après élève bi doo ko fa teg par exemple le parent là su ñëwoon rek hmm, su ñëwoon même su doon dañuy dal si kaw professeur bi mais waruñ ko woon def sax si si waa devant l'élève donc seen doom la mais imagine léegi ñu bàyyi problème bi jeex xale boobu di jàngaat professeur bi du ko jàngal mais ban cër lay jox professeur bi donc c'est pourquoi yenn yi mun nañ koo mun nañ ko éviter voilà ñun nag xam nga nit moom soo nekkee si liggéeyukaay euh, nit si liggéey liggéeykaam loo ko jox mu soo ko joxee lu muy liggéeyee daanaka dafa la war a sant waaw ñun ay jàngalekat lañ mais soo ñu joxee ay élèves pour ñu jàngal pour ñu jàngale ñun dañu war sant parce que soo amul leen élèves ñun duñu jàngale moo tax élèves yi euh, ñun dañ leen war a protéger ñun ñuy les premier ñu war a protéger élèves yi voilà bañ nañ ko ba par exemple euh, classe des fois da ngay su amee benn élève bu insulté beneen élève mais dañ koy jël très au sérieux pour que pareille situation bañ a amaat parce que entre ñoom. war na am respect également bu dox seen biir donc da ngay yu bëri da nga koy jéem a régler mais nag du ñàkk aussi comme dans la société problème yi di am yi di am mais nag war nañ xoolaat ñun suñu donc sunu système éducatif jëm ko tëggaat de telle sorte donc yii yëpp ñu mun ko parce que yu bëri mun na dañaa mais kii bi depuis le départ la nag depuis le départ parce que man mii sincèrement euh, aw ma fit saaga élève man aw ma élève si élèves yi am na ci ñoo xam ne wax nañ ne yaa a de ces seen explication du leer boo ko ne monsieur je ne ba après yow doo am satisfaction en même temps aussi am na des profs yoo xam ne comme boo dëkkee ay gunaas ak du genre comme si dañuy saboter fi nga dëkk loolu da leen vexé est-ce que aussi ñoom duñu ko jëlee genre kaf ba après xamuñ ne ñu ngi gaañ kenn wala ñu ngi koy vexé bon voilà c'est que euh, métier boo jël métier boo jël am na ñu koy def donc euh, de la donc euh, ñu koy def si façon bu gën a voilà rafetee par rapport a d'autres métier boo jël nag donc soo jëlee si enseignement am na soo jëlee si corps boo mënta jël voilà par exemple su ma jëloon sax par exemple dans dans si journaliste yi pareil voilà euh, je pense que par exemple Euh, parce que man munu bon munu ma prononcé wu trop si li ma xamul euh, comme ñun man par exemple dans ma dans ma classe dama koy constater très souvent man damay dama naan élèves yi pourquoi vous ne posez pas de questions pourquoi vous attendez à la veille des évaluations pour pour pour parler de vos difficultés des fois donc donc tu tu es obligé de leur donner un travail nga xool des fois seeni erreur pour mun ko. pour mun koo rectifier donc pas du ñu bañ dañuy bañ question yi euh, des fois dama leen koy wax des fois élève day poser question après ma ne ko non tu ne devais pas parler comme ça après ma ne ko beneen du ni ngay waxee parce que man donc am na loo ñooy waxee su ma si gisee sama bopp rek defaa mun naa la bañ a tontu parce que des fois question bi nu muy duñ koy poser du du kii waa vois une fois mos naa di expliquer élève yi def nii loxoom pour ma continuer continuer na def ni loxoom. après mooy mu dagg ma sama sama explication monsieur doo ma tontu boobu léegi kii maa ngi yëkkati sama loxo ma continuer ba pare après ma ma interpellé ko dégg nga damay wax balaa pare rek après mu ne monsieur euh, je m'excuse maa ngi jéggalu parce que y a certaines de ces façons foofu nag nga koy nga koy waaw foofu nga koy corriger donc génnul classe corriger naa ko après tontu naa ko si si kii yom voilà léegi. Euh, concernant ay explications yu claires ak yooyu waaw ay devoiru classique yooyu xam nga enseignement dafa dafa global ji nga les professeurs ñu ngi en classe mais nit soo koy liggéeyloo aussi dafay am aussi des programme de formation yu muy àndal man su ma la nee sama classe kañ laa gëj gis inspecteur mooy ba may passé sama examen gisatuma inspect inspecteur certainement c'est amul accompagnement boobu noonu moo tax par exemple tey dangay nga jël le programme sénégalais nga jël côté science bi am na pas mal de cas nga xam ne amul des documents de référence yu ñu produire ñun au Sénégal da ngay dem outil une documentation donc si programme français dem programme tunisien même programme algérien bi sax wala Mauritanie am nañ ko foofu ngay jëlee documentation pour ñëw moo tax donc yooyu dafa baax pour que euh, enseignement bi aussi mun a facile donc mun a gën a gën a simple voilà euh, élève bi je pense euh, ak effectif yi mun na ko expliquer des fois effectif fu quatre-vingts élèves soo bëggoon def travail de remédiation par exemple kii problème bii la am ma ñu ñu jéeg mu gérer kii problème bii la soo ko buggee def si effectif fu quatre-vingts élèves day poser problème parce que di nga am retard si progression bi dinga am problème mu terminer programme bi loolu moo tax donc ak yenn effectif yi day difficile trop. pour nga mun a répondre à toutes les interprétations donc bu ko répondre comme il faut moo tax euh, cas yooyu su amee nag war nañ xool effectif yi war nañ xool euh, formation des profs euh, ñu koy renouveler voilà di leen di leen di renouveler ça par des par des séminaires et cetera voilà concernant aussi est-ce que des fois kàddu yi ñuy wax ci dëkkuwaayu élèves yi mun leen a mais la plupart fii ñu fiy jàngale daaw laay ñun si banlieue bi lañ dëkk man fii laa jàngee dama doon damay joxe benn année chaque chaque fois dama ko wax sama élèves yi ma leen yéen vous avez la chance ma leen man mii di man euh, su ma ñëwee ba toog fii di leen jàngal yéen vous pouvez faire plus ma ne ko man ba may jàngalee sama yaay moo doon jënd sama fourniture da doon jaay des fois samay samay fourniture du mat may continuer di ñafe des fois nga ñëw école xaalisuñu dëkk bi amuloo ko. nga dox ñëw kii nii nii voilà man ma def renforcement mosuma parce que aw moon moyen pour fay des cours de renforcement donc noonu la ñu taaba taabaay taaba taabaay ba voilà ma toll fii ma ne yéen vous avez plus plus de sens mënoo jaar foofu ba pare nag nga ñëw bëgg a bëgg a bëgg a xale yi si kii boobu noonu donc moo tax da leen di wax des fois difficulté yu nekk que environnement bu ñu nekk c'est un environnement bu nga xam ne donc euh, gars yi dañ naan réussir fii dafa difficile mais mun nañu réussir nee naa leen da ngeen koy ñëfe parce que fii euh, euh, très souvent donc quand après le concours général dañuy am prix ñun SVT par exemple su ma jëlee la cellule de SVT euh, à part soo jëlee depuis deux mille mille 2013 ba fii chaque année dañuy am prix ñu ngi perte prix bi premier prix bi ñu ko perte deux fois mooy année après Covid bi. am na une année là j'ai oublié dañ ko perte premier prix bi mais à part ça dañu dundal yëpp dañu doon jël sa premier prix deuxième prix troisième prix euh, parce que dañ naan ñun on a l'obligation euh, que certes c'est pas un lycée d'excellence comme le lycée Diourbel le lycée par exemple euh, président militaire Mayamba Ba mais on fait tout pour que ñun ñëpp cellule bi yëpp impliqué aussi formation donc des candidats pour que ñun ñu mun Euh, egg au niveau des autres euh, donc des lycées d'excellence te yàlla dimbali nañu donc prix SVT euh, très souvent si ñun lay su ñun lay ñëw donc ba daaw ñun ñoo jël meilleur prix SVT soo paree mun nga xool fii si ginnaaw di nga gis ñu affiché fii commencé nañu sunu processus de recrutement bi ak encadrement bi donc depuis xaaruñu sa administration dañ koy def dañ naan dañuy démarrer année bi rek on dit on va démarrer ñu ñooy dem di uti notu élèves yi xool seeni i notes ñan yan yan profil ñoo gën a baax ñu commencé def test de sélection et du ñu def mukk sélection parce que prof bi dafa choisir nit déedéet dañ leen di jox épreuve ñu corriger ko ak anonymat ñu jël pour kii nii c'est-à-dire que effort boobu ñuy def donc effort la donc pour ñu jàpp te ñoom ñu si bokk ñëpp la plupart si banlieue bi ñuy jógee mooy xeebuñu leen. donc mënuñ leen xeeb mënoo bokk ci banlieue jàngee ci banlieue dëkk ci banlieue actuellement fa lañ dëkk donc après ngay wax ci banlieue du kii on est même fier gis nga saa ñu defee ba ay résultats baax donc tellement da ngay da ngay kontaan voilà et puis euh, je pense que yooyu ay kii rek du ñàkk nag du ñàkk nag des fois ay nit di waxtaan voilà euh, mu wax la yenn yi nga gise sa bopp mais su demee ba lycée banlieue ñun banlieue lañ nekk lycée banlieue mais des élèves nous viennent en ñu ñëw di jàngee lycée Lamine Laye ku jóge yeneen localité ñëw sa veut dire que ñun war nañ ko namoo wax élèves yi aussi waruñ ko kii le problème qu'il y a mooy euh, effectif bi dafa gën a bëri man ba may jàngee Lamine Laye amuloon effectif bi bëri na classes yi c'est pléthorique nombre de profs motul euh, raison pour laquelle des fois euh, pour mu am cas yi day xaw a difficile imagine ay élèves yu toog ba prof bi amul amul espace bu mu doxee si table banc yi pour contrôler le travail des élèves individuellement si kanam rek ngay dox mais des fois élève bu nekk au fond di manipuler sax un portable tu as du mal à waaw nga xam ko wala élève bu nekk au fond bind na wala bindul wala def na wala defu ko tu as du mal à contrôler moo dox yooyu yëpp da ci da ci ànd daal dernière question lan ngay wax parents d'élèves yi ak élèves yi même bu nekkul cas bi présenté wul ci yeneen lycée mais it mu doon benn message d'alerte ndaxte it xale bu ñëwee di jàng bëgg nañ mu réussir bëgg nañ aussi mu am avenir boo xam ne dina jàppale ay waajuram mënal boppam. voilà loolu euh, ñun déjà ay parents d'élèves lañ parents d'élèves nekk euh, aussi enseignant moo tax ñaari casquette yëpp la ñu la ñu am donc élèves yi euh, dama lay raconter benn kii gis nga jun ñëpp suñ demee examen ko collègue peut en témoigner ji nga suñu demee examen ba ñu ba ñu de ba ñu yow da ngay tiit xam nga looy tiit say élève ngay xalaat des fois tu da ngay bëgg a xool épreuve bi sax après di xalaat say élève yi nga donc man il euh, il le matin su jouru examen damay jënd kër gi gis ay taalibe jox leen sarax leen ñaaral leen samay élèves yàlla nañ am kii c'est-à-dire donc seen seen réussite lañu bëgg seen réussite lañu bëgg donc on est on fera tout pour que loolu yomb si ñoom euh, parents yi également ñun ak ñoom ay partenaires lañ parce que éducation xale bi du rek école yaa école la kër ga la ak àndandoo yi mais nag. parents yi dañ ciy jouer un rôle très important loolu moo tax ñun ak ñoom partenaire la ñu donc ñun également ak la société pare parce que xale bi tey xale bu am bac des fois da ngay gis waa koñ bi sax donc dañ koy yëg félicité ko kontaan donc c'est c'est tellement beau donc c'est pourquoi euh, muy ci enseignants yi muy si parent d'élèves yi muy si euh, le gouvernement en tout cas war nañu def tout pour que njàng mi amaat gëddëm pour que njàng bi aussi lekkool sénégalaise donc euh, new ma sax mu ñëwaat avant lu meloon mais mu raw sax lu mu nu mu nu mu meloon que la violence mu bañ a nekk lu ñuy cultiver à à donc tey da ngay dugg par exemple si école mais des fois man ba ma doon jàngee fii ma lay jox un exemple bu bu bu tellement kii ba ma doon jàngee fii si y avait un pro un proviseur qu'on appelle qu'on appelait monsieur Diop Souleymane Diop. gis nga quand on quand on sonne ba ñu fermer kenn du toog si cours bi élève du toog si cours bi kenn du fa toog même un professeur tu es en retard da ngay taxaw ci biti ba ñu ba ñu sonewaat ibbi ngay doog a dugg ça veut que tout le monde respectait l'heure da doon vérifier bay vérifier fleurs yi cest à su ñu day xool gardien yi ba xam arrosé nañ fleur bi wala arrosé ñu fleur bi c'est que on a besoin de cette rigueur la élèves yi il faut que rigueur mu am si moo kër gë la moo xam ñun ñu teg leen rigueur pour ñu jàng il faut également rigueur si ñun ñu ñuy ñu ñuy donc ñun am nañu donc ñu ñuy administré ñoom it il faut benn rigueur de contrôle bi donc loolu su amulee loolu mooy indi yenn kii yi donc tant que amul nag donc à chaque fois day bëri yuy sooxe tey soo ñëwee élève mun na ñëw si école bi wala élève ñëwul des fois da ngay ñëw si fii duñ xam sa ba xam élève bi ñëw na wala ñëwul jàng si ça pose problème normalement élève su ñëwulee war nañ mun a xam ne diw ñëwul te su ñu xoolee ne lu muy ñëw bëriwul mais ñu ñu ñu interpeller le parent man def naa ko deux fois cette année dem naa si surveillant bi ne ko wool ma tel kii son parent parce que gisuma ko cours gisaatuma ko banque plusieurs fois mu gis sama cours ñu woo parent bi mais ñooy parent bi nee na ah moom pourtant tout le temps day ñëw tout le temps day ñëw et puis ça problème il a fallu léegi ñu convaincre parent bi ñu waxtaan ba après l'élève et donc mu ngi ñëw léegi normalement mais yooyu soo ko dul def des fois donc soo soo ko mënta def donc mun na indi aussi yeneen problème c'est pourquoi par exemple euh, éducation bi di yëfu enseignants yi rek ñun ñëpp suñu yëf la même les journalistes je le dis ah gis nga su demee si région yi gars yi di gars yi di délibéré bac damay gis ñoom très souvent dañ ko defoon nag même temps avant donc avant Covid ñoom da daa am ay rajo locale nii ñoom ñooy délibéré gars yi dañuy toog seen kër euh, fii bon amuñu woon kii boobu di ko def mais da ngay gis des fois di nga rajo locale bi suy délibéré mais da ngay da ngay euh, te si familial da ngay da ngay da ngay gis gars yi dañuy toog ñoom ñëpp di di déglu te dañuy yuuxu mel ni par exemple dañoo voilà c'est tellement et loolu euh, ñoom euh, les élèves ñoom da ngay gis élève xam ne day day ragal du toog kër ga parce que bugg buggul déglu résultat bi day dem école waaw day dem école taw parce que buggul déglu résultat bi ak day ragal mais suñ ko suñ ko suñu waxee turam immédiatement day daw kër ga waaw loolu moo leen di pousser ñoom à chaque fois parce que da nga naan ah man de je ferai tout pour réussir pour que man it sama waa kër su ñuy déglu résultat bi mu demee nii tu vois eh, gis nga foofu la presse a joué un rôle tellement import important voilà c'est pourquoi par exemple éducation bi du suñu affaire rek du su affaire kii nii yéen aussi seen affaire la moo tax lépp lu si soxee ak lépp lu nga xam ne daf koy jëmale kanam donc yéen war ngeen ko wax donc war ngeen ko wax parce que yéen da di jouer bu important su ngeen waxee dañ leen di dégg su ngeen waxee. dañ leen di dégg dañuy jëfe voilà ñun mun nañu wax mun nañu kii wala des fois problème am nii gars yi kii ko mais yéen da ngeen si jouer rôle bu important tey man j'en suis sûr que euh, le système éducatif sénégalais programme sénégalais bi bés bu ko gars yi waxoon ni journalistes yi impliqué ñu impliqué aussi yenn façon impliqué yi donc bientôt di ngeen gis un changement sur euh, programme programmes et sur le système éducatif voilà ah, dernier mot di Euh, souhaiter rek euh, suñuy élèves yi ak tous les enseignants di leen souhaiter bonne et heureuse année donc mes meilleurs vœux de de de succès voilà mais surtout de de paix et de santé waaw di wax ne euh, incident la du lu ndaw nag mais yàlla bu mu fi amati donc yàlla nañ ko donc yàlla na am à chaque fois donc nos relation avec les élèves mu nekk des relations donc euh, donc de d'entraide mu nekk des relations donc professionnelles entre le professeur et son donc et son élève yii mu bañ fi mu bañ fi am parce que neexul kenn voilà tey jii soo dàqoon élève sax après da ngay dem ba si biir gis ne élève bi nga dàq peut-être sax Euh, mbokkom nga wala peut-être liom nga tu connais ton son parent tu connais tel qui connaît son parent parce que ñun ñëpp ay mbokk lañ voilà moo tax yi daal donc sama dernier mooy sama dernier moom mooy euh, yàlla na fi violence bañ a amati waxuma rek ñun suñu lycée de mais bañ amati si espace scolaire que ñi si mën a wax nag ñi si mën a ñi am kaddu Euh, ñu sensibiliser gën a kii donc parents yi également si kër ga ñu jéem a sensibiliser xale yi pour que yii bañ fi am donc le lycée Lamine Laye nag euh, dinañu def incha allah euh, tour des classes gën a waxtaan ak élèves yi pas waxtaan pour les intimider déedéet waxtaan pour ñu xam ne donc lii moo ñu fi ni comme objectif ñu xam ne acte d'indiscipline amu fii kii nii donc dañu war a am respect envers nu nous également ñu am respect envers envers ñoom voilà